nañ fi mu toll nii ñu ngi tranquillement këram waaye alkaati yi alkaati yi ñu ngi wéy di dóor ay grenades lacrymogènes ngir euh, tasaare mbooloo bi topp le président Ousmane Sonko ngeen gis ngeen ñu ngi woy vidéo ay ay lacrymogène ci convoi bi ñu ngi woy di dóor ay lacrymogène ci convoi bi ñu ngi woy di dóor ay lacrymogène ci convoi bi ñu ngi dóor ay lacrymogène ci convoi bi ay tir à portant ci loo xamante ne mën ñàkk euh, Sonko daaneel lu mu jàll. Diallo Diallo Diallo. da ngeen noonu de retour excusez la qualité du son. président Ousmane Sonko ñoo ngi toll fi nga xamante ni moom moo di rond point di Sonatel di ñu war a dem rejoindre cité Keur Gorgui mi ngi noonu gendarmerie mi ngi noonu encore dooraat ay lacrymogène ci kaw pont bi ci kaw pont bi ak pont bi nga xamante ne moo dandoog Sonatel jëm kër président usmaan Sonko toppaat nañ xale yi door nañ ay moto yi dañ leen wër ndombo moto yi moto yi dañ leen wër ndombo loolu moo moo leen metti doorati nañ ay lacrymogène ñu ngi noonu ci kaw pont bi ngeen di seen ñoo noonu de part et d'autre ils sont là ils sont là Sonko moto yaa noonu yéen a ngi koy moto yi la ñuy tere ñu àgg si waaye lii la yàlla dogal Apa

mettez les cœurs mettez les cœurs askan bi yëpp xam ni li fi xew tey ñoo ngi fii ci pont bi war a la tanière du lion président Ousmane Sonko la tanière du lion du président Ousmane Sonko yéen a ngi koy seen noonu force de l'ordre yaa ngi noonu topp fu xale yi génn ak seen ay moto rek ñu lancé ay lacrymogène face noonu ci kanam mi noonu ci kanam ci suufu pont bi mi ngi noonu ci suufu pont bi gis nga dooraat nañ lacrymogène mi ngi moto yi moto yi de la ñoo bëgg a xañ ñu gunge président Ousmane Sonko waaye moto yaa ngi noonu bënnatu nañ beneen yoon door nañ lacrymogène ak ci convoi bi mi ngi noonu gis noonu yéen a ngi gis noonu yéen a koy gis noonu doorati nañ beneen lacrymogène directement ci abri bi nga xamante ne foofu la xale yi ne woon mi ngi noonu mi ngi noonu dooraat nañ beneen mi ngi noonu dooraat nañ beneen C'est bon. Mais non, non. La démocratie de la honte, c'est ça. La démocratie du président, c'est ça. Et door nañ ci ay lacrymogène waaye ñun dañuy jàll oto président Ousmane Sonko mi ngi damay toog damay toog. waaw ñooñu ñu lay téye waaye moom. yàlla démocratie. maa ngi wax wax. la démocratie du président Macky Sall. il nous garde et ils en sont fiers. mi ngi noonu mi ngi noonu oto président Ousmane Sonko mi ngi nii au milieu de la fumée des grenades lacrymogènes nii ak détermination xale yaa ngi noonu borom moto yi bënn jiitu nañ il s'apprête à bloquer il s'apprête à bloquer le pont il s'apprête à bloquer le gis noonu oto baa ngi noonu pour dagg le convoi du président Ousmane Sonko mi noonu bus bi avancé na nii noonu seen car la ñu avancé pour bloquer pour bloquer li nga xamante ni moom moo di le pont aux autres véhicules du convoi seen dispositif baa ngi nii. ñu ngi noonu de la sécurité du président Ousmane Sonko bloqué bloqué nañ leen ci kaw mi ngi noonu. oto baa ngi noonu bloqué na fii am na beneen bu bloqué fële ñooñu noonu gis ngeen xale yi ni ñu bënnee xale yi bënn nañu li la yàlla dogal nangu leen dogalu yàlla ñu topp la loolu yàlla mooy ko ñëpp du ko jóg ñu topp la yàlla mooy loolu ñëpp ngi noonu ils ont bloqué une partie du convoi ñoo ngi dugaat dans la tanière du lion kër góor gi cité kër góor gi ñoo ngi noonu sécurité baa ngi noonu doorati nañ beneen lacrymogène ci kanamu convoi wu président Ousmane Sonko ci biir oto bi lañ ko

ñoo ngi dóor ay lacrymogène ñoo ngi dóor ay lacrymogène gis ngeen ko wetu suma suma mi ngi noonu suma ngi noonu ci biir hôpital bi mi ngi noonu suma lañ dóor lacrymogène dooraat nañu beneen kenn mësul gis lii. ay mécontent lañ seen xale bon seen xol yi ñooy bon seen xol yi ñooy bon ay góor jigéen lañ. li la yàlla dogal Sonko Sonko la yàlla dogal fu mu génn nit ñi topp ko loolu la yàlla moo ngi noonu difficilement on respire président est à quelques mètres je vous de chez lui waaye il continue à tirer des grenades lacrymogènes un peu partout ñoo ngi tirer ay grenades lacrymogènes ba léegi alors que dugg nañ cité kër góor gi mën nañ ñu bàyyi ñu àgg dem suñu kër waaye ils ont bloqué le rond-point cité kër góor gi di tirer ay lacrymogènes on est pris en tenaille de part et d'autre envoyé ay lacrymogène le convoi du président Ousmane Sonko. ministre de l'intérieur ak mooy bon